mbokk salam alaikum. dañoo ñëwaat ngir waxtaan ak yeen ci mbirum président Ousmane Sonko xam ngeen ko jeudi 4 janvier 2024 affaire Mame Niang président Ousmane Sonko dañ ko wara atté àtte ci xam fële nga xam ne moy mooy cour suprême waaye mbir mi kenn waru ko mëna atté. Liko waral moy déggoon ngeen mbir ñu doon wax exception d'inconstitutionnalité nga xam les avocats du président Ousmane Sonko dañ koy soulever ba tax na kenn warta mëna atté y yaa mieux que ça juge bi nga a atte mbir mi muy le juge Abdourahmane Diouf moom ci boppam en 2022 conseil constitutionnel daf ko rappelé woon à l'ordre sur un même fait boo xamante ne nii la meloon conseil constitutionnel daf ko waxoon ni ko bu ñu la saisireté d'une exception d'inconstitutionnalité waratoo mën a atte bul atteeti parce que loi bi moo la tënk bi nga xamante ne moom loi euh, conseil constitutionnel à cour suprême boo ci conseil constitutionnel c'est la loi organique 22 article 22 de la loi organique du conseil constitutionnel boo demee ci cour suprême c'est la loi organique article 91 même loi de la lan lay wax nee na bu ko li exception d'inconstitutionnalité dafa war a jël mbir mi jox ko conseil constitutionnel moom cour suprême juge bi à l'époque dafa àtte woon conseil constitutionnel décision rappelé ko à l'ordre ne kon vous saisir d'une exception d'inconstitutionnalité jël ko transmettre ko conseil constitutionnel parce que c'est la loi les avocats du président Ousmane Sonko vont saisir le jeudi le juge Abdourahmane Diouf d'une exception d'inconstitutionnalité comme la loi de ko vous article 91 de la loi organique de la Cour suprême vous des conseil constitutionnel article 22 de la loi organique du conseil constitutionnel Vous ne bu ni saisiree ñi nga cour suprême wala ay ñaari chambre d'une exception d'inconstitutionnalité dañ koy jël jox ko ki nga xamante conseil constitutionnel comme juge Abdourahmane Diouf mënul àtte ce jeudi l'affaire Mame Ousmane Sonko kenn cap moo ci mën statuer moy conseil constitutionnel té bala mu cee mëna a statuer mu def un mois gannaaw biñ ko ko joxé loolu moy bi ñëk ñaarël moy bu ngeen sétlo amna mbir mo xamante nit ñi bayiwuñ ko woon xel mais les avocats de Adji les avocats de Mambay ñom et les avocats de l'État concernant l'affaire bi nga xamante mom lañu pourvoir à cassation pour bañ mu nekk candidat ce sont les mêmes avocats Maître El Hadj Diouf Ousmane Cham Adama Fall toujours les mêmes avocats ñom lañuy jël fep fo il s'agit de Ousmane Sonko affaire Mambay euh, ce sont les mêmes avocats affaire Adji ce sont les mêmes avocats affaire État du Sénégal contre Ousmane Sonko ce sont les mêmes avocats ñu bayyi lo leen xel bu baax parce que ci kanam tuuti dinañ leen wax lu waral ñu bëgg ngeen bayyi xel ces avocats là.